salaamaaleykum am téléspectateur Dakar Buzz yi nuyu nañu leen fi ñu leen daan nuyoo tey nag ñoo ngi fii ci teeru bi seet si fi nag sunu mag sunu xarit muy ndaanaan li ma naan mënoo tudd làmb doo ko ci boole muy Doudou Diagne ko di président des amateurs di ko xam ne doonoo gimmi gis ko ci làmb muy do liggéey ci làmb nag rôle bu am solo du Diagne maa ngi lay nuyoo. maa ngi lay fay Fadel Dakar TV yaag sa caméraman Dakar Buzz. Dakar Buzz maa ngi nuyu waa Dakar Buzz yëpp. Mhm. di la ziar di la baalu àq. si tabax si bi ñu jóge di baal àq euh, képp kuy sénégalais képp kuy amateur làmb képp kuy mbër képp kuy ménager képp kuy promoteur képp kuy képp rek ku bokk si sport maa ngi lay baalu àq di la baal àq di baal àq aussi suñu ministre des sports muy Matar Ba di ko gën a félicité di félicité suñu lion yi bër ki ak njaay yi Euh, basket bi gis nañu li ñuy def ñoom tam ñu ngi leen koy félicité di félicité tamit équipe nationale football di félicité képp koo xam ne ni sportif nga Sénégal di baal ak njiitu réew mi di baal ak euh, politicien yeeg képp koo xam ne nii am nañu jëflante rek maa ngi lay baalu ak di la ñaanal gudd fan wér di ñaanal réew mi yàlla def ci jàmm ak salaam nawet bi yàlla barkeel ko kilifa diine yi aussi ñu ngi leen di ziar di leen baalu ak ak képp koo xam ne nii. kilifa aada nga dëkk si rëkk bi ñu ngi lay baalu ak di leen siyaar di ñaanal ñi feebar yàlla yëkkati leen ñu nekk si prison yi aussi yàlla delloo leen seen i njaboot jërëjëf amin yàlla yàlla nangu ñaan yi Doudou Diagne rôle président des amateurs ci biir làmb lan la lan mooy rôle am xam nga président des amateurs euh, ñu ngi ko donnee suñu ay kilifa ñu mel ni ñoom góor gi Ibra Diop ñoom Moussa Thiam Baye Malick Niang yàlla na ko yàlla yërëm amiin waay suñu pap bu wax Mamadou alaaji Mouride géey Saliou Seck bëgg jàmm ak Maam Ngor Fall Pàkk Lambaay ak góor gi Cheikh ñi ngi bari na ñu bari ak góor gi Mamadou saar nga xam ne ñoom ñëpp ñu ngi fi dund ak góor gi Mbaye Thiam si ñooñ lañ ko doonee ñu dénk ñu ko amateur dul dara bokk ndey bokk bàyyi la défendre li ñu bokk mooy làmb waxtaan ak promoteur mu yombal billet waxtaan ak mbër mu yombal promoteur combat ba mën a am dox ay combat dox jàmm nit ñi nekk benn xamuñu xuloo xamuñu xeex loolu mooy amateuru làmb sañse dimanche jot nga am si yére bu rafet nga sañse dem làmb ja boo daanee wala sa mbër daan nga woo ko ngeen ànd bokk ndey bokk bàyyi ñeen añandoo reerandoo waxtaan kafree loolu mooy amateuru làmb amateuru làmb day liggéey ba dimanche jot mu bëgg a jëndi stress am mooy làmb lay seetaan mooy sport national am bu ko seetaanee balaa muy dem ñoom dinañ añandoo naan attaaye dem làmb ji àndaat ñibbi loolu mooy amateur la. d'accord mais rôle am rôle am en tant que président des amateurs moom rôle am moom lan lay lan taxaw ci biir làmb. président rôle mooy billet bi na baax. Hmm. ñun bu ñu ñëwee suñu rôle moo noon stade nañ ko raxas nettoyé ko bu ñëwee am fu mu toog. Hmm. làmb yi nañ ko assuré parce que amateur mënul ta dëgg billet ëllëg mu feebar leneen dal ko. wala mu nekk si stade bi am leneen lu ko dal si biir amateur war na dugg ak suusum pour nit ki xam ne diw mi kat amateur la dagg na biir mu ngi si mm-hmm. stade bi mm-hmm. loolu mooy défendre intérêt des amateurs mm-hmm. amateur lépp loo xam ne nii tey war na la si làmb président des amateurs ak bureau des amateurs bi ñu àndal war nañ la défendre ba nga am li nga bëgg si làmb d'accord ba nga am li nga bëgg ci làmb kañ la la njëkk a muy président des amateurs kañ loolu lañ ma njëkk tabb président des amateurs 2000 ci lañ ko woon tabb la mais dafa demee benn instant après gisatuñ la woon ci làmb lan la woon dama dem ba 2012 yàlla suñu waram dogal ma mën a noppalu ko bàyyi jox ñu pour ñu jox keneen yàlla dogal ñu def assemblée générale fal keneen mm-hmm. ma dem yàlla dogal amateur yi woowaat ma bëgg ma ñëwaat jàpp si ba ñu defaraat bureau bi ba nekkaat si ah nit nag amul lu say mbokk say mm-hmm. xarit say mm-hmm. lépp te ñun amateur lañu mm-hmm. làmb rek lañu bëgg donc moo tax ñu ñëwaat rek pour xool nu ñuy liggéeyee làmb mu gën a jëm si kanam d' accord ñu ñuy liggéey mu jëm si kanam mais est ce que amateurs yi dëgg dëgg dëgg ñu ngi wax seen problème ci biir làmb yi anga koy yëg maa ñu si mën a régler ñu ngi si mën a def ñu ngi koy def ak bureau des amateurs nga xam ne tamit mënuñu ko régler yi ñu ngi si ay solution pour régler ko hmm. d' accord mu mel ne li may tàmbalee rek mooy stade arène arène arena ba stade bu bees la mais koroog boo gisee làmb bi mu fa amee ba nu dem fa siège yi sax na mu taxee ak na mu tilimee est-ce que sa liggéey dëgg dëgg dëgg yaa ngi ko ci def nu mu waree parce que xam nga dagg sa ticket billet bu seer ñëw sol sa jersey bu rafet ñëw toog ci mu tax loolu ñun ñëpp ñoo ko ñaawlu lu ñu ñaawlu ko mooy stade bi amul njiit chinois ya fa ne wax nañ leen ko ñu nettoyer stade bi stade bi amagul njiit amagul directeur amagul dara moo tax mu mel noonu lu tax mu mel noonu aussi wax keroog waxtaan nañ si ak ñi nga xam ne nag ñoo nañ si war a waxtaan pour bu ëllëgee làmb ngi waaj ubbi ñu mën a di nettoyer stade bi parce que ay nit a fay dugg. Mm-hmm. ñu mun ko nettoyer ba mu set li nañu am fu ñu toog donc monté guñu bureau bi pour xam kan mooy jiite stade bi bu waa parce que parce que xam nga tey ministère de sports ñoom ñooy gérer stade pour le moment ak mm-hmm. chinois yi. Mm-hmm. donc nit nag fekkee amuñu koo xam ne ni mooy njiit gi nga mën a wax ak moom. Mhm. période boobu ñu bari dem nañu championnat d'Afrique. ñëpp demoon nañu équipe nationale di doon football. Mhm. ñëpp dem keer amoo koy waxal. donc loolu la mais incha allah ñu ngi si ak waxtaan bu yàlla defee ñu am kii incha allah làmb ji bi ubbi bu soobee yàlla loolu dootu fa amati. dootu fa amati président des amateurs li ñu bëgg a xam parce que amateurs yi souvent dañuy interpellé dina laaj loolu ndax état da koy jóg a daggal budget di ko fay wala dafay am salaire par mois parce que loolu tam ñu fa ñu. ñun amuñu salaire. Mhm. état joxuñu budget lu ñu am mooy bureau bi dinañ cotiser dañuy jaay ay carte de membre ñun suñu biir it lu ñu war a régler nit feebar bu ñu mënee cotiser dimbali ko te yàlla tax. ñun amuñu kenn ku ñu wéeru ku dul yàlla ak yonent bi ak mm-hmm. suñuy poos mm-hmm. ñaanuñu kenn mm-hmm. demuñu bureau kenn nañu may ñu demuñu kenn ne mayal amateur nangam ak nangam kenn mayuñu ñaar dërëm lu ñu mënti am ñu ñoo koy créer suñu bopp defal ko suñu bopp d'accord Doudou Diagne foofu laay duggee sax suñu waxtaan ubbeeku na mu mel ne bu njëkk boo xoolee amateur ñoo daan taxawal combat te léegi néew na nga gis combat yoo xam ne sax amateur yoo koy taxawal lu tax loolu làmba dee wala lan la amateur ba léegi ñu ngi taxawal làmb am na rajo yoo xam ne promoteur dañ koy déglu yow mi ndakaar Buzz promoteur dañ lay seetaan mm-hmm. léeg-léeg amateur wax wala supporter wax benn combat kooku ama promoteur dem seeti mbër ma taxawal ko mm-hmm. léeg-léeg am na rajo yoo xam ne boîte vocal bi serveur euh, vocal bi du tëj mm-hmm. dañ siy woote ay plus de trois cent appel wala quatre cent appel di wax combat bi lañ bëgg combat bi lañ bëgg combat bi lañ bëgg bari na combat yu bëri amateur yi koy taxawal Mm-hmm. bari na combat yu bëri amateur yi ñoo koy taxawal léegi ñu jóge ci saison bu teg mm-hmm. euh, est-ce que mën nga ñu defal bilan saison bi est-ce que dëgg-dëgg amateur yi gis na seen bopp comme par rapport ak saison bee passé waaw saison bee passé moo gën a ci parce que boo xoolee saison bi dafa gàtt ñu ngi doon dem si Coupe d'Afrique mm-hmm. ak koor gi yooyu yëpp dafa gàtt si saison bi mais loolu aussi terewul promoteur def nañ si lu mu mën tëgg nañ ci ay làmb alxames àllarba samedi yooyu yëpp def nañ ko pour rek dabu làmb yi te boo xoolee tamit saison bi saison bu neex la bëri nañ bëri nañ fi combat yoo xam ne macha allah combat yu bari bëri nañ ko fi muy combat yu neex kon promoteur yi gàcce ngaaraam ñun amuñu rek lu dul parce que aussi euh, Fadel làmb fu compliqué. Hmm. doomu aadama sax laay wax. Hmm. tey man mun nañ daan sama mbër man la làmb ci saison bi dara neexu si parce que sama mbër daanu non mais en tant que amateur du wax loolu dama lay wax si si amateur am na ñu ah, koy wax loolu am na am na amateur yu wax loolu am na naan man daal sama écrit daal ren moom aw ma benn victoire kon làmb ji neexu si ma <laughs> nga gis kee xam ne écrit am daan na ay mbëriam yëpp ay daan sama làmb daal neex na sama saison neex nga gis koo xam ne day ñëw ne la vraiment ma làmb ji dara neexu si ma moo tax man du ma mën a di wax ne parce que nekkuma si xelu ñëpp mais ñun lu ñu xam ñu suñu biro amateur bureau bi làmb yu neex la parce que ñu tànk que làmba ngi dox amul incident amateur toj ñu boppam xeex amul ñun pour ñu làmb ji moo neex. waaw loolu moom wàññeeku na ci làmb violence moom. moo tax nag ñun dañ naan rek saison bi neex na di gën a encourager promoteurs yi pour ñu gën a ñëw incha allah si làmb ji. d' accord di gën a encouragé promoteurs yi ñu ngi leen ko ñaanal ñoom ñëpp yàlla may leen ay xéwal ba ñoom ñëpp ñu daw ñëw mais boo xoolee promoteurs yi est ce que que làmb nekkul en faillite parce que promoteurs yi ëllëg mu yokk mais day wàññeeku man sama gis-gis man parce que ba tax ma ne la wàññeeku mooy eh, ku mel ni Pape Thialis boo gisee daaw moo nekk presque meilleur promoteur te ren gisuñu ko dégguñu ko. waaw li indi loolu mooy mbër yi dañoo cher te làmb ji bu cher yi il faut mbër yi wàññi seen loxo parce que làmb mbër tax mu jóg kon mbër yi il faut ñuy wàññi seen loxo moo tax yenn promoteur doo leen gis jarul sagu nag nit ki fekkee yow tëgg nga ay làmb di perte xam nga ne li nga fay seer na il faut nga ñëw pour ñu wàññil la nga mën a duggaat si làmb il faut mbër yi wàññi seen loxo promoteur yi doogu ñëw mën a bëri parce que làmb bu toogee amul mbër moo si loru. mbër ci loru mais tam li ñu seetlu parce que li ñu seetlu mooy. bu njëkk da nga daan gis promoteur di xëccoo mbër te léegi loolu daanaka amatul ku mel ne sunu papa Gasson ñu ngi koy nuyu au passage gisatuñu ko Assis Ndiaye gisatuñu ko Pape Thialis gisatuñu ko Luc Nicolas benn combat def mooy rëg rëg Gris 2 bi ak ni làmb toll woon nga xam ne dari daan daan dem bay bousculer ku ne di xëccoo moo tax man est-ce que nekk làmb nekkul am fay li ma la wax léegi rek làmb dafa ànd ak lu ñuy wax sponsor bu demee ba sponsor yi jeex promoteur bi dooleem lay dem di ko tëggee làmb donc il faut mbër yi wàññi seen loxo xam ne làmb dafa tollu foo xam ne il faut ñu defaraat ko adduna bi moo toll ñàkk xaalis li adduna bi ñàkk nag il faut ñëpp ànd si ku nekk am loo loo bàyyi pour làmb mën a avancer. mais porteur de voix ga ak fi nga toll ci réew mi est-ce que état état war na seetaan lom làmb toll foofu parce que làmb facteur de développement la. état est-ce ci dugal loxoom woo imposé sponsor yi nekk Sénégal ne leen force force da ngeen war a dugal seen loxo ci biir làmb waaw xam nga làmb aussi loolu chaque jour moo ko man dem naa Mali gis naa sponsor yi li fa investir. Hmm. tabax fa ay stade basket yooyu yëpp gis nga tey Mali avantage bi mu am si basket ñu investir si sport bi investir si lu am solo te état Sénégal war na mën a jël ñu mel nii ñooñu ñu tudd. jàppale sport bi surtout nag jàppale làmb hmm. parce que làmb facteur développement mag loolu dëgg la mais tamit état am na loo xam du ko mën a def lépp il faut nag promoteur bi uti ay sponsor sponsor yooyu promoteur xam nga privé la ku nekk ak sa poos hmm. te état buy dimbali day dimbali ñëpp loolu tamit wax dëgg yàlla dëgg la état mën na wax ay sponsor ñu investir xool promoteur bu nekk sa capacité lan lañ lay dimbale loolu yëpp ay négociation la ay ñaan la aussi ay waxtaan la mais fi làmb toll six mille licenciés lépp nekk ay seen nekk ay borom doole. yow ah, yow est-ce que ëpp ko sax est-ce que ëpp sax. loolu la ñu wax est-ce que ëpp sax trente mille eh, licenciés parce que li ne ci boo demee ci tefes gi sa yaram day daw. loolu la CNG waxuma maa ngi nuyu au passage CNG di nuyu suñu papa Alioune mais boo demee ci tefes gi duudu sa yaram day daw li yaakaar ci làmb jël seen activité yëpp def ko ci làmb ak lamb ni muy nekkee fay di wàcc loolu moo tax mooy wax état la pour mu jël engagement. xaaral la benn ñun 15 millions sénégalais lañu. Mm-hmm. ku nekk juddu am ndey ak baay. Mm-hmm. yàlla yemalewul ñëpp. làmb loo daw entraîné entraîné boo si war mos doo mos. il faut ñu xam loolu mbër yi fi ne bari bëgg bëree mënuñu bëree ñëpp ci làmb c'est impossible lii mbir mi tey ku mel ni sëñ Modou Niang day jénne ay xale. Mm-hmm. tëgg ay xale di ko jénne. ñu koy wax sëñ Mourou centre formation moom ñu ngi koy nuyu di ko gërëm. ko mooy promoteur des espoirs. Gaston am na lu mu fi def loo xam ne dootul fay. Mm-hmm. Aziz Ndiaye am na lu mu fi def dootul fay. déedéet ni ko laay noonu. nga jël Pape Abdou Fall tey président des promoteurs am na lu mu fiy def du fay ñoom ñoom Fallou Ndiaye ñoom. bari na promoteur ku nekk am nga bés am na loo fi def loo xam ne Kandji Dieye vraiment ñoom ñëpp muy Dieye muy Laxaat Ndiaye ñoom ñëpp rek am na loo xam ne mun nañ ko mun def nañ ko fi te du fay déedéet promoteur boo gis nag bu ndaw amul ak bu mag amul ñoom ñëpp am na lu ñu fi def loo xam dootul fay. effectivement parce que organiser ay bës yoo xam parce que jël sa xaalis plus de 5 millions wala 10 millions dugal ko si ay xale pour ñu am lu ñu dundalee seen njaboot def nga fi loo xam dootul fay cas social la kon ñooñu tey mérité nañu ngërëm état mérité na mu gërëm leen président de war na leen sax recevoir làmb gërëm promoteur yi gërëm CNG gërëm amateur gërëm ñëpp xam ne am na lu ñu indi si réew mi ñu ngi def si réew mi loo xam ne nii tey vraiment ñu ngi jàppale xale yi ki waroon dem agressé yi nga ne ko kaay benn bés mun nga am un million pour agressé ki waroon dem xeex ki waroon dem gens yi ki dem tux nga changé ko tey ba mu nekk si loo xam ne mu ngi dundal njabootam tey làmb amal Sénégal amal na leen d' accord Sénégal amee na la njukkal mais foofu rek laay waxee comme par exemple ku waroon dem defi lu bon mu bàyyi léppam dégg ma làmb état mooy mooy ndey réew moo ñu yilif ñun ñëpp état lu mu bëgg ci réewam mën na ko am bu ko yàlla dimbalee état est ce que jorul moom ay sociétés yi fi nekk mu ne dugal leen seen loxo ci làmb foofu laay waxee parce que làmb joomaat kanam parce que état bëggee suqal làmb ji ko suqali de bu ko bëggee suqal dina ko suqali. non xam nga tey def nañu benn assise si wàllu làmb ak ñun ministère des sports mooy suñu tutelle. Mhm. te ku bëgg a làmb la ku bëgg a la. Matar Ba ñu ngi koy nuyoo am na ay xalaat am na lépp pour làmb développer. kon ñun su ñooñu lañ nekk xam nga ñun am nañu kilifa. Mhm. kilifa googu nag mooy waxtaan ak gouvernement wala mooy defar gouvernement mais daal li ma xam mooy loolu yëpp dëgg la waaye mbëri nañu wàññi seeni kase ndax làmb mën a avancé buñ ko deful. làmb dina toll foo xam ne ñoom ñooy am problème mais keneen du am problème. mais Doudou mbër yi yokk seen kase boo xoolee ñeenti mbër la mbaa juróomi mbër. mooy tur yooyu mbër yëpp la mais yeneen mbër yi ci xam ne boo leen laajee tey ñu laaj la mille la nga dem si ñoom ñu lay wax ay deux cent mille trois cent mille cinq cent mille nga gis mbër boo xam ne cinq cent mille la war a bëree di laaj trois millions wala deux millions loolu ngi fi. non mbaru cinquante non non yooyu yëpp am na. cinquante mille ñëwatuñu koo fay mbar. non cinquante mille euh, du jaan jago man Fadel de kenn du ma fay cinquante mille. mais su ma ko am na si làmb ci làmb ma yëgal benn mbir nañu wàññi làmb ci promoteurs yi gën a ñëw làmb ji gën a avancé. làmb nan wàññi loolu la wax kon bëri dégg ngeen président des amateurs moom nag moo fi teewal amateurs yi yàgg kaasal amateur yi mais est-ce que dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg sa ci biir ci biir làmb ji yaa ngi koy at bi matal sëkk sëkk tab du njaay du jaan xam nga yoolu yàlla rek a mën a matal hmm. ñun doomu aadama lañu hmm. mënuñu matal lépp parce que boo gisee ma wax la ma daggal foofu boo gisee ma la loolu hmm. léeg-léeg amateur yi di revendiquer billets mais kaay fi ma wax nga làmb sponsor moo mën a wàññi billet làmb am mais kii jël xaalisam dëgg làmb nga wóor ne amul dara ñun dañuy waxtaan ak promoteur léeg-léeg ñu ne la wàññil nga ne noonu lii laa mën a ñu ne la nga wàññi bañ a perte lu ëpp moo gën nga seeral perte lu bari. Hmm. boo ñu déggalee nag nga wàññi perte 2 millions wala 5 millions. moo gën nga yokk perte 10 millions wala 15 millions dañ koy def mais nag nit ki du jëli xaalisam yor njabootam. nga koy forcé naan ko billet bii ngay def par force ñun loolu duñ ko def duñ si xeex duñ si xulu mais parce que aussi hmm. kii jël xaalisam def si làmb dimbali ko defoo ko dara mais moom dafa bëgg am dara si làmb ji yow sa mbër buy fayeku lu seer doo ko wax ne ko yombalal la wàññil loolu combat bi na am rek <laughs> mais bul seet intérêt mbër mi tudd te bul seet intérêt seetal intérêt promoteur bi c'est ça le problème mbër mi souvent da ngay gis président écrit bu naan noonu nañ ma fay nangam kooku fay ko mu ne la billet bi nangam mu ne man dama bëggoon jënd billet waay pour sama doom yi nga ne ko billet bi 10 maam billet bi dafa seer de te yow bi ngay waxaaleeg mbër mi waxoo dafa seer <laughs> donc il faut tamit yooyu yëpp ñu bàyyi si xel. <laughs> d'accord am lu bees lu ne ñëw ci làmb euh, muy wàllu PPV ñu gis ne bi mu duggee ci làmb euh, mais xam nga ñu liñ ciy gën a xalaat waa àll bi. est-ce que ñoom dëgg-dëgg PPV bi dinañ ci gis seen bopp amateur na ci alifan mën noo ñëw loi bi sax da koo nangu loolu mbirum France la ak ay Amérique ay yooyu ñun suñu loi nanguwu ko Sénégal nanguwul loolu mm-hmm. loi bi nanguwu ko loi bi li mu nangu mooy nit ki dagg biyem seetaan yi wala mu toog tele boo ko defee en direct mu seetaan mm-hmm. wala nga collaborer koo xam ne mu ngi ay découleur kooku di wane làmb ji ku bëgg a dem abonné ji dem jënd dem seetaan làmb mais yooyu ñuy def ñun nangu nanguwuñu ko tey nanguwuñu ko su yàgg naa leen ko wax may ne promoteur bu si dugg di nga perte perte xaalis boo xam doo ko doo ko gëmee te ñu bëri gis ñu seen bopp. ñu mm. ngi noonu. parce que boo gisee ñu wax loolu mooy làmb du ndakaaru am na ñu ne ci sous-région bi ne ci àll bi. te ñooñu seen jot mayu leen ñu dikk tan tan tan am làmb ñooñu bu ñu demee ñëpp ray làmb. parce que làmb du ñëpp a baax ñooñu hmm. ñëpp sponsor bi moo leen daan yóbbaale jox promoteur bi xaalis ne ko defal en direct kooku fay jëndee ko en direct ndax kat sa àll ba xam ne kat ah sponsor bi de moo tax ma seetaan làmb kon man maa ngi dem jëndi produit yokku de fefti fefti la woon loolu moo indi problème looloo waral direct yi di am mais direct bu amul nag promoteur bi day ut pexe bu mu amee xaalis. mais ñàkk direct bi làmb du yegg ci àll bi est-ce que loolu tam du gën a rey du rey rey làmb parce que nit ñi di am visibilité bu njëkk làmb daan ah, mais te reyul làmb. jamono bu ak njëkk ak ah, léegi mais jamono bi benn adduna adduna tey am na dëkk yoo xam ne boo defoon direct tamit mënuñu ko seetaan duñ ko seetaan tey boo defoon direct am na ñoo xam ne amuñu télé mënuñu ko seetaan yow doo forcé na rek nit ku ne war na mën a seetaan déedéet am na ñoo xam mënuñu seetaan parce que amuñu télé amuñu rajo mënuñu déglu dañuy demaat feneen dem di ko seetaan wala ñu dem beneen rajo di ko déglu loolu Fadel il faut nga xam li yàlla bind kenn mënu si dara. Hmm. mu ne leen diw tey dinaa Macky Sall mi jiite réew mi du ñëpp la mën a fekk fañ ne. dafa am gouvernement am lépp. mais ku si nekk mu ngi ñaan pour yow Sénégal bi ñu satisfaire la mais mënuñu satisfaire ñëpp. mais yow en tant que président des amateurs yow yoon idée nga xalaat ni boo ko boo ko waxee wala nga dénoncé ko làmb mën na ci soqaliku. idée ñun bu ñu am léegi pour làmb soqali ko mooy mbëri nañu wàññi seen kase. kase waaw moo mun a dox tax làmb soqali ko mbay yi di bëri nit ki promoteur bi tëgg mën a am dara bu ëllëgee mu dellu si waat mais bu dee da ngay tëgg yaa wax léegi ay promoteur gisatoo leen parce que dañuy perte bu ñu pertee duñ ñëwaat. mais man xam nga li ma jaaxal président man dama gis promoteur yi ne dañoo tëgg perte tëggaat est-ce que li liggéey di perte. di liggéey di perte que parce que xam nga tey promoteur bi nga gis muy tëgg làmb. amateur la. dafa bëgg a làmb si xolam. nattu la munoo si dara il faut ñu tëgg. mais nattu la ba ci di tëgg. di mais am na ñoo xam ni bu ñu tëggee yenn mili kii seen mbokk yi dañ leen téye ne la yéen ñu bàyyi leen nii ñu bay moo tax ñoo xam ne gisatoo leen loolu rek la. mais nattu la ba ci ngay liggéey di perte di liggéey di perte. Ah, est-ce tam est-ce que tam perte bi dëgg-dëgg promoteur di wax est-ce jom euh, ñu ngi ko ci gis. gis nañ fi entrepreneur ñu jox dem nga perte ñu joxati la chantier nga perte perte moom sens rek bëri dañuy perte état Sénégal sax day perte. Hmm. ku dul perte amul képp ku yàgg liggéey di nga perte di nga am. <laughs> ñu jëm ci jeux olympiques 2024. Hmm. loo ciy xalaat seen idée. waaw loolu dañuy sport yëpp la. Hmm. wàllu jeunesse la. ñun. li si mën si wàllu làmb ñun. Mm-hmm. am na lu ñuy wax lutte olympique war nañu préparer xale yi def lancement seen jeu de lutte ci wàll boobu xale yi mën si jàng lutte gréco lutte olympique pour bu ëllëgee ñu mën a am ay médailles ñi nga xam ne aussi ñu ngi équipe nationale ñu gën leen former gën leen defal ay préparation dëgër. def benn compétition boo xam ne ñu bari dañ si parce que ñu xool ki gën a aay ki gën a mën a nekk champion Sénégal ñu mën ko dugal si compétition yooyu parce que yooyu compétition yu am njëriñ la gis nañ si ñoom Pape Diop daan fi am médaille. Mm-hmm. ñoom Double Less ñoom Ambroise Sarr. Mm-hmm. ñoom Amadou Kati mm-hmm. bari na ay ñoom Boy Bambara. bari na tey ñoo xam ne euh, lutte olympique boobu defar na leen gis nañ fi Moustapha Guèye. gis nañ fi Tyson gis nañ fi ki nga xam ne aussi mooy Yékini. bari na expérience yoo xam ne di ko am si combat si mbër. parce que day jariñ mbër day yokk mbër kon yooyu yëpp war nañu xool ni ñu koy waxtaanee pour bu ëllëgee ñu mën a am ay médailles si suñu réew d' ñu mën a am ay médailles ci suñu réew mais boo xoolee tam ñooñu nga lim ñëpp ñu ay champion ay ndaanaan teewal réew fu ne daj ci réew mi tey ji boo xoolee ak fi ñu toll seen ñoom seen dafa mel ne ni làmb delloowu leen dara parce que ñooñu nga tudd ñu ci bari tey tubaarkàlla macha allah ku ci yàlla dimbaliwul rek day xaw a métti ci yow ñoom ak ñu yàgg xeexal réew mi est ce que làmb delloo na leen dara ñooñu ngay wax làmb tey balaa may am lu ma metti rek gis ancien couloir bu taxaw si bunt ñu téye la loolu dafa metti làmb rek la am amul benn sport booy dem ñu téye ki nga xam ne nii il a tout fait man loolu dafa may metti am na ñoo xam ne sax man damay jël jal daggal leen bi yëpp ñu dugg loolu lu may metti la même bu dul làmb sax bu ma gisee koo xam ne ancien international la football wala basket wala dara ñëw si buntu taxaw ba ñu ñu téye ko mu bañ a dugg dama lay daggal bi même boo dul nitu làmb parce que am na loo ma loo defal sa réew mérité nga ñu bàyyi la nga dugg. waaw mais tamit dafa am loo xam ne sigil sa réew jar na lu ne ñoom dañ ko defoon pour sigil seen réew. réew mi tamit moo leen war a delloo njukkal mais ñoom dañoo def li ñu war nit nag boo defee li la war réew mi aussi war na def li ko war si yow tey anciens internationaux yëpp tey réew mi war nañ leen delloo njukkal ñoo xam ban njukkal la mais mérité nañ ko muy surtout si wàllu làmb judo karaté ñooñu dañuy dem bërki démb gis nañu euh, Strable dem na championnat du monde donc am na ñoo xam ne tey dañuy dem si yeneen réew di jël ay médailles mais buñ ko amee war nañ leen delloo njukkal comme ni ñuy delloo njukkal football bi ak basket bi malgré tey football bi indiwuñu fi benn benn coupe wala indiwuñu fi dara yaa ngi dégg judo barki dem moo Ndiaye judo euh, am na ku jël médaille d'or Jeux des Africains ngay dégg kooku mérité na lu ne ñeneen noonu ñeneen noonu kon loolu il faut ñu bàyyi si xel war na bu ko defee war na bu ko deful war na bu ko defee war na bu ko deful war na même bu fekkee mënu ko def it mu bind état bi bind ministère de sports pour ñu defal ko ñooñu parce que war na lu war la lu war la ñu defal leen ko même fan yee dégg naa euh, benn xale bu jigéen jël euh, champion d'Afrique la lutte olympique kooku tey danoon jàng soxla na bourse pour dem defi jàng ñoom ñëpp war nañ leen jàppale pour ñu am ay ay moye bu ñu demee defi bourse loolu yëpp état bi war na ko def mais nag CNG moo war a def bind ministère des sports wax ay éléments kooku seet ni mu koy defee ak nguur gi mu def ko parce que loolu mooy yoon. mais nag mais nag mais nag defal nang am na ñoo xam ne ministère des sports mataar Ba danañ di jàppale te xëy na du ko wax xëy na du ko wax si rajo du ko wax si télé mais mu ngi leen di jàppale ñoom it am na ñoo xam ne wax nañu man kat ministre bi mu ngi may jàppale jàppale na ma nii jàppale na ma la yooyu aussi dañ ko si ñaanal yàlla wéral ko may ko kàttan bu mu leen di jàppale parce que am na ñoo xam ne mu ngi leen di jàppale c'est nag dafa am loo xam ne du waxu rajo du waxu télé. waaw adduna ñun ay sénégalais lañu dañuy suturante il faut ñu xam loolu tamit. amateur yan combat la xaar yoo xam ne combat cànq lañ bëgg saison bii di ñëw ndax bii passé yaakaar naa yëguñu seen bopp à 100% yan combat nga ne amateur yi ñu seen bopp. amateur yi ñu doon xaar euh, yu bari yu bari bëri amateur yi lamb saison bi Ama Baldé def mais année blanche Ama Baldé Ama Baldé la. tafaatin moom la parce que fay nañ leen ay prix mais baax na mais déggoo lu ma la wax làmb ji il ñu wàññi xaalis xaalis bi amatul si réew mi il ñu wàññi lamba bu demee ba nga xam ne war nañu wàññi làmb mun na tëj mun na am leneen il faut ñoom ñu wàññi ñiy def année blanche yëpp ñoo ko teg seen bopp waaw ñoo ko teg seen bopp parce que yow bu ñu la fayee booy ut par exemple booy ut 20 millions ñu fay la quinze millions boo bëree daan di nga amaat 15 20 millions wala bu nga am 25 millions. donc da ngay jël avance dem bëri ji parce que yow bëggee yow yaa ngi ut 30 millions wala 40 millions promoteur munu la ko fay mais doo bëri moo tax mbër yi def année blanche bëri te mbër mbëri aussi dañoo ragalante da ngay xool Pikine ñaata écurie fa am ku nekk ne du ma bëri diw du ma bëri diw géejawaay ñu bëgg a def centre ñi daan bëre léegi ñu ne bëreetuñu affaire géejawaay li ñuy indi suba nga gis écurie Fass ñeneen nekk ñeneen ak Médina ñu ne ñu ne dootuñu bëri kon kan mooy bëri seen biir wuy ma waaw kan mooy bëre ci léegi ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñooy lor seen bopp mbër il faut ñu bëre suba nga nekk xarit loolu du dara làmb la da ut xaalis waaye yow indi lu benn violence bu ñoom bu dee bu ñoom bëgguñu euh, indi kii nañ dem ànd def benn écrit mais benn gox téeméeri écrit nga ne doo bëri doo leen bëri seen biir waa Caaroy bu ñu booloo nekk benn waa Pikine booloo nekk benn ne ñu bëri seen biir te bokk leen écrit loolu ban njariñ la am loolu ragalante la dañoo tàppet waaw dañoo ragalante kay ragalante la déedéet déedéet loolu musul am loolu musul am ma ne loolu musul am ma ne nañ ànd waaw bu fekkee mënuñu waaw fe ma ne déedéet fekkee mënuñu ànd ah, nañ toog ñoom ñoo rey làmb ci ñoo ñu def yooyu ñoo rey làmb ci guy gi mënoon na bërëg Balla Gaye waaw géej waaye dañu daan bëre seen biir écrit Balla Gaye école de lutte Balla danaan bëre ñeneen ak ñeneen ñu daan bëre seen biir bokkuñu écrit écrit géej waaye la ak école de lutte Balla Gaye bokkuñu dañ naan bëre seen biir lu tax léegi ñu bugg a dajaloo naan parce que ragalante la. ñoom ñaan ñëpp ragalante waaw pour pourquoi mënuñu bëre seen biir dem di def ay xarit ak ñeneen dañuy demale ne la écrit yi ne ñëpp daje naan doomu géejawaay doomu Pikine doomu Faas doomu nangam ñoom ñëpp dañoo ragalante ñoom ñoo yàq làmb ci te seen te balaa ñu koy xam nañ dem ba si kanam ku nekk di nga lor sa bopp ku nekk di nga lor sa bopp si làmb mais lan la fu muy tàkk mais fan lay tàkk ma ne amul fu laamu toll leen ma ne gox bi nga jóg du la may dépense am na ko fa nekk koo xam ne booy bëre yow yaa koy jëndal billet sax bu mu demee làmb ci kon yow mbër mi làmb nga am dangay ngay nekk benn Pape Diop Baston moom Mbaye Guèye dañ ne woon du ñu bëre ay ñaata ak du ñu bëre parce que dañoo bokk ay supporters bokk ay xarit mais Mansour Diop rakam ak Pape Guèye rakku Mbaye Guèye moo leen boole ba ñu bëree bëri bu metti tey Mansour Diop boobu ak Pape Pape Guèye boobu ñoo dëkk itali loolu si ne te Mbaye Guèye bëre naa ak Pape Diop ñaari yoon ñu machine yi mujj nañu bëre. non loolu da Boy ñaa dafa nag Birahim Ndiaye ñoom si yàlla docteur Faye bëri nañu Birahim Ndiaye utal ko liggéey muy liggéey fii Birahim di liggéey terewul bë liggéey dañuy bëri loolu du dara loolu du dara non xam nga loolu style boobu yow mbër mi yaa koy créé yaa koy wan say supporter xamal leen kii sama xarit la mais day liggéey may liggéey suba mun nañ ñafante suba gannaaw suba ñu ànd mbër bëre na ak mbër daan ko muy ngénte mu dem sa ngénteem toog yenn fa ba ngoon jot mu dem mbër daan na mbër daan na la muy ngénte nga dem sa ngénteem toog fa wala nga dem këram toog fa añee fa reera fa ngeen ànd ñëw si làmb bàkku loolu du dara non xam nga dafa nag bu ñu changé ay fa làmba tolloog sa làmba tolloog dama bëgg nga déglu ma yi nga cosaan cosaan la loo gis ñu jëlee ko fa bu dëkku fa làmb dëkkul si violence ak ñaari mbër yuy xeex ak xuloo làmb dëkkul foofu làmb foo la ak ree làmb cosaan wi du ay xeex du ay xuloo ñaari mbëri dañuy nekk benn tuddante doom nekk ay xarit bëre bu jotee ñu bëre loolu mooy làmb bu ñu indi fii tey ay bëgguñu teg ay boxeur ba sa ne Amérique ak ay gang la ñoo yooyu ñun amuñu làmb si ay gang làmb amul gang làmb amul gang ay gang yooyu nañ ko teg fële ñun sport la ñuy def sport boo xam ne dafa ànd cosaan buñ changé suñ culture mbër day sol xaftaan mbër du xamul costume ak karwaat mbër da ngay sol sa yére olof bu rafet dem dem làmb ja nga daan dimanche bi stop nga ngemb ñëw bégal say amateur boo daanee dem fii Euh, euh, Mool 2 ñoom bàcc ñaa ñooñu nga xam ne kii day supporté Tafa Gueye kii di supporté Tyson kii di supporté ñëpp nekk benn ñoom Babacar Sarr ñoom bàcc ñoom euh, Abdou Ngom Ngomez nga toog fa ñëw teral la nga dem Sandaga loolu la mbër daan def say amateur nga seeti leen ñu ne la kii moo doon supporté diw yaa ko daan waaw sang ko affaire yooyu mu njëkk dix mille may kooku wala nangam wala kay jënd xar ñu rey lekk loolu amateur di def ñun loolu la xam mbër ñun mënuñu changer suñu culture mbër du sol ay tubay ay jumba xaw ma euh, teg down ñu bon yooyu mbër du ko sol mbër da ngay yiw sol yére bu rafet correct loolu mooy duna mais dem ba France ñu naan kii mbëru sénégalais la nga sol ay check down nit ñi di la jéppi mbër boo wàccee Paris da ngay sol sa ndaanaan bu rafet ñu xam ne kii culture sénégalaise la sol mbër la dangay dem beneen dëkk dajak ay mbëru nigérien Nigéria walla Burkina Faso yow da ngay ruus parce que dañuy sol seen culture non non non eh bu njëkk eh waaw defal naa dama lay yëgal benn affaire mbër mbër mbëru démb yi ancien gloire ñoom Manga 2 ñoom Birahim Ndiaye ñoo dàq sañ si mbër yi ku si nekk amoon nga sa tailleur dimanche bu jot ak xaftaan bi ngay sol man bolog yéen nga xam bolog bolog man man bolog yow bolog yi xanaa xamoo bolog yooyu ñoo nga dàq kay tey tey boo boo solee waay yow ma ne yow da ngay xale rek sol nii sol démb la ah déedéet non non non yow xamoo dara amateur changement amu si ku si nekk bi ngay seetaan làmb am na ñoo xam seen baay da leen téye loxo di leen yóbbu làmb ja seen papa nekkatu fi wala mag la dematuñ ñoom ñu bëgg a làmb di ñëw culture bala sa baay jàngaloon moom nga xam ba léegi amateur ba léegi dañuy sañse sol xaftaan bu rafet toog si stade bi wala sol seen yëre yu toog si stade bi amateur loolu lay amateur amateur du wax lu bon du saaga du yuuxu nit du toroxol nit du jël mbuus di sànni nit du def dara du ñëw tey internet bi di bind si nit lu bon amateur xamul loolu amateur li mu xam dimbali nit ànd nit te yàlla tax supporter euh, mbërëm bu daanoo mu kontaan bu daanee mu kontaan bu subaa mu ñëwaat si làmb loolu mooy amateur est-ce que yaa ngi dox ci côté côté social bi di dox ci suuf pour boo gisee ancien gloire bu sonn wala mbër mu bëri ba bàyyi bëri te mënatul est que yaa ngi dox ci côté boobu dëgg-dëgg pour côté social nga ma nee naa télé laa xam nga euh, euh, Dakar Buzz nga nekk waxal loo bëgg a yooyu du ma ko wax man li may def social bi may def làmb xam nañ waxuma yow sa socialu bopp socialu président des amateurs boo xam ne léeg-léeg mu gis mbër mu bëri ba bàyyi bëri. non dégg nga mooy li ma wax rek nga ma la ñun social bi ñuy def làmb ji xam nañ ko xam nañ social bi ñuy def man lu ma si wax da ngay dem laaj làmb ji. Hmm. d' accord mu la ko waxee amul sens. d' accord ngay président des amateurs ñu dégg euh, yaayu Modou Lo ñu ngi ko nuyoo passage di sunu yaay ne diggante Modou Lo ak Balla Gaye bëggatu ko te ku ne xam na ne lomb day làmb amateur loo ci xalaat loolu. ah loolu soo am la man aw ma yow en tant que président des amateurs aw ma lu ma si wax. bëggoo loolu yow non man loolu aw ma lu ma yaay président des amateurs bëggoo loolu parce que yow yaa yor kaddu amateurs yi ma yoree kaddu amateurs yi yaayu mbër mi lu mu si wax man aw ma lu ma si wax hmm. yaayam la vie privée yaayam la seen diggante la mais bëgg nga loolu en tant que président du si wax loolu amul sens man ah, si wax ah. déedéet ñu nangul la ko CNG ne reconnaître roi des arènes bépp bu fi jaar bu dul bu mànga en tant que président des amateurs loolu ci xalaat waaw loolu mun naa si wax loolu wax naa ne ànduma si te ñu bari sénégalais aussi waruñu si ànd màng suma xarit la nit ku baax la def na làmb lu kenn deful jël na drapeau pendant dix ans kenn mënu ko daan hmm. champion la bàyyi na làmb nekkaat si làmb di tëgg làmb di doxal li traditionnel bi di si def alalam di si def dooleem ak li bëre dóor bi xam ne moom làmb ko def li mu def li mu nekk tey kon dey delloo si teraanga ci si làmb ma koy gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér di ko dellu courage si wàll boobu mais Manga dafa jël drapeau bi si Mor Fadam ñu bëri benn yoon match ni ñu tegal amul woon compétition ay quatre mbër amul ñoom ñaar rek lañ ko tegaloon Manga daan ko nekk le roi des arènes nekk fi kenn mënu ko daan mu xëy na day bàyyi bëri jubilé jubilé bu rëy ñëpp fekk ko teraanga yooyu yëpp neex bi mu bàyyee làmb ay am ay amateur am moom si boppam ñoom tamit ne ñun tam bàyyi nañ làmb bés ni ki tey maa nga bàyyi na bàyyi na ñooñu tey mën naa leen tudd may jaru ko mhm. ñoom it ñu bàyyi làmb ba tey ji ñëwuñu si làmb maa nga dem jubilé écurie séeréer woowaat ko ne léegi ñun kat écurie baa ngi daanu il faut nga ñëwaat ñu jox ko Tyson mu ñëw Tyson daan ko ñu ne Tyson roi des arènes. Mm-hmm. Bombardier daan Tyson. Mm-hmm. ñu ne Bombardier roi des arènes. Mm-hmm. Yékini daan Bombardier. moom it yor ko daan ñëpp. mu nga wóor ne ñu bari ñu bari ñëwuñu. uniquement pour féliciter ko. muy daan Yékini di daan ba Balla Gaye ñëw. daan Yékini ñu ne ko roi des arènes Bombardier ñëw daanaat Balla Gaye ñu ne ko roi des arènes Eumeu Sène ñëw daan Bombardier ñu ne ko roi des arènes Modou Lo ñëw daan Eumeu Sène Eumeu Sène c'est roi ko kenn mën ko dindi CNG dañoo tardé si wàllu roi des arènes waroon nañ ko créer bu yàgg fekkoon na fi benn roi des arènes boo xam ne ñoom créé ñu ko woon Bey ak ku ñuy wax euh, Cheikh Thiaré ñoo fi nekkoon mm-hmm. ñoom ñoo créé woon drapeau roi des arènes CNG ñaata at mu ngi nekk si làmb ji jéemul créé ne suba ay xale dinañ ñëw war nañu mérité nekk roi des arènes. Mm-hmm. ñu créé loo xam ne roi des arènes la koy indi defuñu ko presse bi ak amateurs yi ak les supporters ñoo créé roi des arènes te muy dëgg Tyson ba mu daanee dane man maay roi ku daan roi kay roi nga. Mm-hmm. wala déet ba mu daanee manga je suis né sur le droit kon nag loolu buñ ko këpp suuf buñ ko def la comme que ñoom jéemuñu organiser roi des arènes ba làmba toll fii mais nañu nanguwul roi des arènes Modou Lô looloo fi ne. kon dafa mel ne CNG côté boobu def cee xaw a def cee xaw a faussé de ci côté. dañ si réer parce que nit boo yoree dara il faut mu am champion. Hmm. il faut nga teg couronne boo xam ne dinañ xam kan mooy champion bi. effectivement mais doo yor dara rek jëmale ko àdduna tukki te kenn du xam champion bi. effectivement c'est trop tard. léegi li fi ne champion bi mooy motlo Lo c'est le roi des arènes tey da ngay dem sport boo gis créé nañ loo xam ne kan la ñuy xam ne kii mooy champion du Sénégal boo demee ci judo da xam champion Sénégal ak vice champion Sénégal sport boo dem làmb rek moo tardé si loolu. diw mooy champion bi mais am na champion mu tudd Modou hmm. moo jël roi des kooku jarul polémique. d' accord am nañ champion mu ngi tudd Modou Lo mooy roi des arènes ñu ngi koy nuyoo passage démb ñu gis tam mook Eumeu Sène ñu def acte bu nice Eumeu Sène jël couronne bi solal ko frère am euh, euh, euh, Modou Lo muy acte bu rafet actu noble ndax làmb lu rafet la baaxoo Eumeu Sène def geste bu rafet ñu gis ko démb seetaan nga ko yaakaar naa. waaw seetaan naa si tuuti seetaan naa si tuuti loolu lu rafet la parce que làmb mooy li ma la wax rek làmb jàmm la àndal. Mm-hmm. bokk ndey bokk baay kaf ak ree ñaari mbër yi suba mun nañ tuddante doom. Mm-hmm. suba kenn sax mun a dem ñaari jabar kër keneen. Mm-hmm. loolu mooy làmb. làmb amul benn problème. bu ñu supporter muy fans club. na xam ne làmb foo ak ree la sa mbër ñu daan suba day daan adduna bi mënoo xëy ne mbër mi adduna yëpp mooy daan mun ta nekk yàlla suñu borom rek moo doon daanu kon il faut nit ñi xam loolu donc geste bi ñu def mu ama seen yëkkati roi des arènes jox ko Modou Lo mais moo ko war comme moom ni ko Bombardier defaloon tey moom mu defal ko loolu loolu c'est important ñu ngi leen di féliciter ñaari mbër yi bëri nañu ci combat bi combat bi Eh, wane nañ fa jom ak ful ak fayda yàlla def Modou Lo daan mu koy félicité di ko ñaanal di félicité ay supporters am ak ay amateurs am di félicité tamit Eumeu Sène ak ay supporters am ak ay amateurs xamal ne àdduna nii rek la. en tant que président des amateurs ba amoon message booy lancé làmb lan lay doon. bu ma amee daal message bi may lancé làmb CNG na nangu roi des arènes Modou Lo amaloo ko ko. bés ni ki tey ñu continuer beneen bi aussi mbër yi ñu wàññi seen loxo si làmb ji pour làmb di am. di féliciter promoteurs yi parce que bu dul woon ñoom làmb dootul am. Hmm. ñu ngi jël seen alal di perte. ci tëgg làmb. Hmm. dañ leen di encourager di leen ñaanal. di ñaanal tamit amateurs yi ñu gën a dolli ñu meroon si làmb bañ nañuy dellu siwaat si làmb. Hmm. xam na làmb mooy suñu esport national. nañu continuer di ñëwaat si làmb. di félicité tamit arbitre bi nga xam ne. Malick Malick mm. def na geste bu rafet. woo naa ko encouragé ko. Mm. mérité na aussi ñu defal ko teraanga yu rëy. parce que exemple la. Mm. arbitre yu mel ni moom wala keneen ku mel ni moom def li mu def. ñu ngi koy gërëm di ko félicité di ko encouragé xam ne keroog defar na làmb arrangé na làmb. Mm-hmm. ba dëgg yàlla làmb amal na ko njukkal. Mm-hmm. may ñaan nag képp kuy mbër wala ngay ànd ak mbër nañu wàññi kase yi ndax làmb ji gën a bari. Mm-hmm. làmb ji gën li ma mu mujjee laaj mooy mu jooj daan en tant que président des amateurs président des est-ce que mën nañ dem bis ba du daan jekku nekk président di tëgg làmb nekk promoteur tëgg làmb aussi. non non man du ma promoteur seetaan katu làmb parce que euh, promoteurs yi nga gis ñuy tëgg làmb yëpp amateur la. loolu waaw mais bokkuñu man du ma def loolu. Hmm? du ma ko def. jamono mënul dox ba nga nekk promoteur di tëgg jamono mënul ko dox ba ma nekk promoteur jamono ba ma ma nekk damay nekk président CNG. Hmm. man daal amateur laa seetaan làmb laa bëgg. Hmm. Euh, euh, lan ngay wax ci euh, Dakar Buzz ñi seet si la fi faadal ak Malick mi nga xam ne ñoom laa àndal. waaw li may def rek mooy gërëm leen. Hmm. sant leen sant Malick sant yow Fadal sant leen gërëm leen. li tax ngeen woo ma bëgg waxtaan si làmp mm-hmm. jàmm ak salaam mm-hmm. di képp kuy seetaan Dakar Buzz mm-hmm. defal la jàmm allahumma yaram ah, nit nag mën na juum mm. bu fekkee damaa juum ngeen jéggal ma te yàlla tax juuma bu dee tamit li ma wax noonu la yàlla ni si yàlla boole yiw yi amiin di ñaanal senegal jàmm di ñaanal fi ma bokk muy làmb mm. muy sport mm-hmm. yàlla may ñu jàmm mm-hmm. muy sportif yëpp jàmm mm-hmm. yàlla defal ñuy gagné ay ndam yàlla dolli sutura gi mosoo ñu si làmmiñ ak cat gën ñu encouragé pour réew mi ëllëg ñu am ay ndam Sénégal yi may ñaan lépp lu ñu dugg pour am ndam yàlla nañu ko yàlla may may ñu nawet bu barkeel suñu mbokku baykat yi gis seen bopp nag yi gis seen bopp yàlla wàcce ndox mu bari te mu ànd ak jàmm am na ñoo xam ne tey bu tawee duñu fanaan seen néeg ñu ngi ñaan yàlla bu ëllëgee yàlla may leen feneen fu ñu dëkk koo xam ne dañu fanaan seen néeg di ñaanal ñu feebar ak ñu si prison yi di ñaanal ñëpp daal jàmm ñaanal euh, aussi félicité CNG parce que ñoom ñoo yor làmb ji ñu ngi leen di encouragé di félicité képp koo xam ne nii tey bokk nga comité directeur CNG yàlla defal leen jàmm bu ñu gën a am expérience bu ñu gën a doxalee làmp asalaam di gërëm it bureau bi nga xam ne moom laa àndal ñoom ñëpp bureau bi yëpp di gërëm tamit lutte traditionnelle bi Saliou Diouf ñoom Diène juuf nga xam ne gis nañ seen taxawaay ak ñoom Moussa Thiam ak ñoom Awu juuf ñoom Mbayang ak ngaati sey suñ jigéen ñoom ñëpp maa ngi leen di baalu ak di leen ñaanal ak Yaafa Diallo di leen ñaanal ñoom ñëpp yàlla defal leen jàmm bureau bi yëpp maa ngi leen di ñaanal dina ñaanal yàlla defal leen jàmm doolu ñu wér ak ak ak aussi commité directeur bi yëpp ñu ngi ñaanal ñëpp yàlla defal ñu jàmm yàlla defal jàmm ñëpp defal jàmm Sénégal defal jàmm réew yi ñuy bokk jàppale président de la république opposition bi aussi yàlla defal leen jàmm ñu xam ne réew mi ñu ñëpp ko bokk nañ ko waxtaan nañ ko péncoo lu war a am ñu am di nuyu tamit sama xarit ministre affaires étrangères Amadou Ba. xam mm. mooy suñu xarit. Mm-hmm. ñu ànd ak moom ci ndakaar di ko ja euh, jàppale di ko ñaanal yàlla defal ko wér gu yaram gudd fan sutura. allahumma amiin. yàlla musal ko si làmmiñ. amiin. musal ko si bépp musiba. amiin. ñaanal réew mi yëpp jàmm ak képp koo xam ne ni kilifa nga fi. Mm-hmm. yàlla taxawu la si barke Seydina yi basket démb ñàkk loo leen di wax. waaw euh, ndam la. ndaxte li tax muy ndam mooy li ñu leen rawee góor góorgóorlu nañu def nañ li mën waaye nag gàcce gaalaama supporters yi. Hmm. nangu ñu bàyyi Lions yi encouragé nañ leen def nañ li mën yàlla nag mooy joxe ndam jox na ko Nigéria dañ ñaan yàlla prochaine fois Sénégal jël ndam li ñu xool li tax ñu ñàkk ndam li liggéeyaat ko incha allah suñu borom mayaat ñu ndam. Hmm. ñu ngi gërëm jigéen ñi jàmbaar lañu gërëm président fédération basket gërëm ministre des sports. gërëm président de la li mu jàppale sport bi gërëm ñëpp xam ne ndam lañ bëggoon yàlla suñu borom defu ko li nga xam ne rek lii moo gën si ñun dañ ko nangu te yàlla tax. jërëjëf lii moo gën si ñun dañ ko nangu te yàlla tax amit la spectateur Dakar Buzz yi lii lañ leen ji si loon tey fii ci teeru bokkoon naa ko sànq sunu frère suñu xarit du Diagne Diecko di président des amateurs di ci liggéey liggéey bu am solo liggéey bu rafet yor ko te ba mu ko yoree ba tey wax dëgg yàlla euh, làmb dafa yokk mais làmb wàññeekuwul. ñu koy gërëm bu baax di ko sant ci oyof gi ak nangu gi mu nangul ñëw def ak ñun émission partagé ko pour sénégalais yi amit téléspectateurs yi lii leen la jël si doon ci micro bi Fadal Niang la géwél bu civilisé ci cadre bi Malick la mooy nuyu nag euh, dem ba waa Pikine di nuyu waa bureau de amateurs ku mel ne Bour Faye Alaaji Samandal Samba Diar ak Khadim waa ginnaaw raay yëpp waaye du nuyu nag sama jigéen Ndeye Fatou Touré nekk cité 1 di nit ku yàlla baaxal di jàmbaari fàkk te di liggéeykat di nuy fàllu borom Napoli di nuy axlu làmb gépp di nuy téléspectateur Dakar Buzz yëpp jërë ngeen jëf fàllu galas borom Afia bu Afia bu Brésil maa ngi lay nuyu Serigne Fatou Mbaye jëf